waaw Wally Seck nag gis nañ ko mu def benn balade genre benn way bu neex boo xam ne mi ngi ci clip bi mais vidéo boo xam ne dañ ci dégg baatu yuusu ma jigéen nduur kër goo xam ne kër gu sonn kër goo xam ne du kër euh, ñu yor xaalis gis nañ benn xale boo xam ne dafa yeewu ba mu yeewoo lan lañu lan lañu wane sangu sax jaaru ci brosse à sax amu ko ndax loxoom baaramam la jël di di di raxas euh, gémminam bu fekk 1960 ñu ngi wax xale yi gëm leen yàlla mère xaar may ma jàgga way na fi ku leen juróon yërëm leen xale yi muñ leen yàlla dina ñëw ah loogu guro moo gën fande yàlla noppiwul ma dara mu ne ko yow grand sa sanc bu rëy bi yëpp yoroo sax 1000 francs la la ko waa ji wax réew mi sakk rek moo fi nekk sakk rek la ñuy demee kon ñoom Wally Seck xam nañu ne dëkk bi dafa dëgg dëkk bi dafa métti voilà gars yi laaj leen partagé leen abonné leen Mister Shake ngeen am

ci ben fan matugul sax ben fan mu am cent quatre vues samay abonné ñu may wax Mister cheikh wax ci wax ci wax ci mais lan lañu ñu gis benn vidéo bo xam ne dañ ci dégg batu Youssou ma jigéen Ndour léegi vidéo bi dañ ci wax né dañuy def lu wax sensibiliser manam di ñaax xalé yi di leen wax né Youssou Ndour wax né on doit être conscient xam nga préparer l'avenir on dit qu'il y a des ressources euh,

ngir wax ne euh, yàlla daal yàlla daal euh, mi ngi fi yalla jeexul amna ñeneen ñu wax ci vidéo bi di wax ne du ñëpp mëna am kër du ñëpp mëna am ay millions comprendre nga kon ñoom dañuy bëgg wax daal ne xale yi daal waruñu euh, ñàkk yaakaar ci ne liggéey dina am ci ne léppay baax ci ne yàlla mooy dogal am na nañ wax ci vidéo bi vidéo bi on voit une maison très modeste une maison de mën nañu wax sax dans un quartier euh, très très défavorisé manam li boo xol ci ben bidonville la. kër xamné keur gu sonn kër goo xam ne du kër euh, ñu yor xaliss gis nañ ben xalé bo xamné dafa yew ba mu yew lan la lan lañ ñu sangu sax jaaru ci brosse à dents sax amu ko. ndax loxoom baaramam la jël di di di raxas euh, gémminam bu fekkee ne nag ñun Sénégal loolu la loolu la ñu bëgg wane ne ñun Afrique ñun loolu moo am Sénégal mais nañ ko wane xamuñu ndax lii réalité wala réalité wala du réalité ndax yow nga yow war a dem dugg ci ci douche bi sangu Sénégalais ñëpp xam nañu bu ñu yeewoo lu mu ñàkk-ñàkk li mu njëkk def mooy dem sangu ji kon nag vidéo yi tamit il faut ñu def attention parce que Afrique Wally Seck ñëpp a koy seetaan waa Mali dañ koy seetaan wa Côte d'Ivoire dañ koy seetaan waa Guinée wa France bu fekkee né yow da nga yew ah kër gi déjà kër gi ñep xam nañ ne kër gi dafa sonn mais au moins sax kër gi satna na waaw mais toi toiture bi gis nga li ci nek ah mais mën nañ comprendre sax mais au moins kër gi si si suuf moom set yow bo yeewoo au lieu ñu wane la nga dem ci douche même bu dee sax douche bi euh, ay ki la rek euh, ay seng lañ fa def nga jël sa siwo sax rot nga sangu sax loolu defe naa moo doon gëna rafet quoi mais ñu wane ben xalé bo xamné dafa yow sëlmu ba paré jël baaraamam duggal daf ko daf ko duggal ko ci gémmin gi non non lay euh euh gémminam ba paré tufli ci diggu kër gi yous Dieng tok à côté est-ce que Sénégal loolu mo fa am gaay yi waxante dëgg bu ñuy def vidéo di sensibiliser dañu wara wax li nga xamné day jaay Sénégal ba xamné kenn duñu yapp ñoom Wally il faut ñu def très attention ci ci vidéo yu mel nii. période corona la ñu nekk yooyu def loolu di tifli te ñëpp xam nañ corona non lañ koy amé. nga dem jege ju euh, euh, euh, Youssou Dieng mais en tout cas xëy na dañoo bëggoon wane ne jeunes yu bëri na nii lañ nii lañ fi nekkee dañuy tëdd ba ay 11h midi bu ñu yeewoo du ñu sangu. mu génn ñaan Youssou 100 francs 100 francs la ñaan Youssou Dieng ko aw mu dem ci mbedd bi gis benn grand xaritam diko wax affaire ataya xarit bi ne ko yow lañ doon xaar muy ñaan xaaliss waaw Benen discours bi ñu dégg keneen ku dul Youssou ku wax ne il faut croire en Dieu parce que c'est Dieu seul qui décide Kenen ki lan moo tax ñuy war daw bay daanu ki di wax ne jeune sénégalaise kenn mun len nax mais gëm yalla gëm yalla ba depuis 1960 ñu ngi wax xalé yi gëm leen yàlla mère xaar ma jaga way na fi ku len juróon yërem len xalé yi muñ len yalla dina ñew ah logu guro moo gën fande yàlla noppiwul ma jàgg kaw Abdou Diouf la ko doon way xale yi dañoo xaar ba sonn gis ñu liggéey gis ñu dara lu ñu gën a dem muy gën a metti ñu dugg ci géej gi di dem di dee Wally Seck gis ngeen clip bi mu génn fan yi yoon bi mu ngi ñaax xale yi toog leen mais loolu ay réalité la xale yi bu ñu sañoon dañuy toog Youssou Ndour ne ne nañu def ba nga xam ne si on veut du boulot on en trouve chez nous maanaam nañu fexe ba buñu ñu out ut liggéey ñu gis ko mais problème bi fofu la yéen yéen nga bëgg def sensibilisation wal sec mi ngi bëgg def sensibilisation yous Ndour mi ngi bëgg def sensibilisation loolu buñ ko bëggé nañu wax ak Macky Sall Macky Sall mo wara fexe liggéey am ci dëkk bi mais liggéey amul ci dëkk bi mënu leen fi nekk nak di wax nit ñi muñ leen muñ leen yàlla dina ñëw yàlla bind na ko loolu loolu yàlla waxu kenn dara dañ ne yàlla yàlla bay sa tool la olof wax tamit Macky Sall mo wara dimbali xale yi mu créer ay emploi Dakar dafa salte ah loolu rek mën na indi ay emploi ndax keroog Buubu Nduur ba mu nekkee ci otom moog Wally Seck ñuy wane dakaar gis ngeen gis ngeen dëkk bi nu mu saltee te boo jëloon ay xale nga fay leen ku nekk cent mille wala ñuy cent cinquante wala deux cent loolu liggéey la nappkat yi nga xam ne dañuy dee ci géej gi boo jënd jëndaloon ay gaal lebal leen ko loolu tamit liggéey la mais nga sacrifier xale yi bu ñu amee bac sax du ñu leen orienté bu ñu amee maîtrise du ñu am dara pare chaque jour ngay dégg ñu naan la Moussa Diop sàcc naak Euh, dakaar dem dikk jël nañ deux cent personnes yoo xam ne dañ leen dañ fay liggéey nekk te kenn fa xaalis bi moom moo ko euh, jël xamuñu ndax dañ koy takkal ndax li mu ànd ak Sonko wala lu mu ànd ak Sonko mais Moussa Diop kan moo ko fa nommé Macky Sall moo ko fa teg xam nga bu Sonko di wax ñu ne dafa soxor li muy wax dëgg tey ñoom seen bopp ñoom ñoo ne Moussa Diop dafa jël ñoom ñoo ko wax Moussa jóob nag bu jëlee ci ñoom la Macky Sall ci boppam moo ne Ngor Ndour defal leen ma audit SODAV ah ñu gis ñu mel ne Abdoulaye Guissé rakk Youssou Ndour bi nga xam ne tey moom la ñu Wally Seck tegal ñuy wax ne dafa am caisse noire cent millions dëgg la wall du dëgg loolu mooy réalité mun leen fi nekk di am seen i millions di di dawal seen oto yi rafet di am seen kër ba pare di wax ne du ñëpp mën a am kër du ñëpp a am ay million loolu message boobu ñun duñ ci ànd. mais nag dafa mel ne message bi c'est un message contradictoire ndax waa ji nga xam ne. bi dafa taseeg moom ci mbedd bi di ko ñaan cent franc di ko ñaan mille franc waa ji def na ko yoruma dara mu ne ko yow grand sa sànq bu bu rëy bi yëpp yoroo sax mille franc la ko waa ji wax réwmi mi rek mo fi nek sakk rek lañuy démé kon ñom Wally Seck xam nañu ne dëkk bi dafa dëgg dëkk bi dafa metti amna na ku ñu am ku def benn discours di wax di wax il faut travailler beaucoup travailler toujours travailler mais travail bobu nak Macky Sall moom moo ko jox xalé yi liggéey bobu ci bopam nak mom gisul kon message Wally Seck bi daf ñu xawa jaaxal jeunes yi xalé yi bañu ñu liggéey ndax ku ndara dugg ci gal ngir dee ngir dem uti liggéey ku war a fay ku fay trois cent mille cinq cent mille pour uti liggéey liggéey ci boppam moo amatul ci dëkk bi. waaw Wally Seck nag gis nañ ko mu def benn balade genre benn way bu neex boo xam ne mi ngi ci clip bi mais message bi ñun moo ñu intéressé Wally Seck lan la wax nee na bu ndox tuuroo ana rootiwaat waa ji ne ko nag balaa ngay rootiwaat xanaa day fekk euh, nga am siwo wala day fekk robinet Euh, tigi te ñëpp xam nañ né Dakar, Sénégal dañu am problème ndox kon message bi c'est un message bo xamné c'est un peu contradictoire mi ngi wax ne xalé yi dañu wara liggéey mi ngi wax ne Youssou Ndour mi dañu di dogal boh am ak warul am mais ci benn côté wal tamit mi ngi ne bala ngay roti day fek nga am siwo kon message bobu pour Macky Sall la message bobu pour gouvernement bi la waaw ñun loolu la ñuy xaar ci Wally Seck xaaruñu ko rek pour ñu nek fi tamit di jema nelawal xale ay Youssou Ndour di jema nelawal suñu jeunesse di leen wax nopi leen Youssou Ndour neena amna ay ressources yu ñew amna ah, ah, pétrole baangi ñew gaz baangi ñew wala yeneen a ñew te dara africain du ci gis dara mais en tout cas musique bi man man message bi xaw ma jaaxal xamuñu ndax li teaser la

ndax sénégalais bu ñu yeewoo du sëlmu la ñuy def wala jël seen baaraam du ko du ko di di galaxndiku du loolu la sénégalais yi def sénégalais bu ñu yeewoo dañuy sangu nañu wax tamit ne xale yi da du question dañoo ñàkk jom bëgg nañu liggéey dañoo gisul liggéey wax wax ji yëpp foofu la voilà gars yi laaj leen partagé leen abonné leen Mister Shake ngeen am est-ce que mën nga présenté wu man la Soxna Diagne madame Diagne <laughs> madame maa ngi madame Mister Shake madame Mr Cheikh maa ngi jàppale sama jëkkër maa ngi yo Ya ne kara yo ya me da now Man my sa elash my sa kilim my sa dija and my lay down now Yai sama ni muridis, yai sama captain, yai sama ni murinam, yo yai kitoka, ya me da now. voilà gars yi like leen partagé leen abonné leen Mister Shake ngeen di am. man xaw ma ni may xoolee man xaw ma ni ngay waxee man xaw ma ni ngay turoo la waaye yaa may daaneel yaa may daaneel yaa may daaneel yaa may daaneel yaa may daaneel Yaysam çok yanarı yiyor Yani kırıp Ya meytanel Yaysam yakıp Yaysam farkı varlı Nyofa Ya meytanel Ya meysinlo Mantama sinye var tatuaj Ya meytanel Ya meytanel Man au ma lumay bagat Man au ma lumay namat Man au ma kumay waradi isnala Yo Ya meytanel Ya meytanel Ya meytanel Ya meytanel may daaneel fa mbëggeel gën a neexee yaa ma ko wan fa mu gën a sore yaa ma fa yóbbu jaxat jaxat ñun àndul ñoom ànduñu ak Macky Sall man may jaagu Sonko man Sonko laa gëm Sonko la ñu àndal tey voilà gars yi laaj leen partagé leen abonné leen Mister Shake ngeen di am foofu